man sant naa yàlla bu baax ndax li ma sant yàlla mooy def ki mu def ci sama xol ma gëm Sëriñ Tuubaa mépp mbir bu ma dugg rek damay wóor ne bu fekkee dëppoo naa bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa rek ndam dana ci am ndax wóor na ma ne lu ci ne rek ñaan na suñu borom ba suñ borom maye ko ci loo xam ne na ko bëggee ni la ko amee moo tax lu mu ci doon tam damay ci ànd ak yaqin bu wóor ci ne ni ko Sëriñ Tuubaa bëggee ni lay am sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr mi nga xam ne moo yor kàddu yoonu murid jëmal la joo xam ni waajuram wa di sëriñ Abdou Khadr Mbacke da ko waajal bu baax a baax ci am njàng yar ak yeeko bu baax a baax ci àddina ci mboolem barab yi nga xam ne jot nañ ko faa jaarale ci xilaaf ak El Hadji Bara Mbacke ci lañ ko joxee mu nekk porte-parole de la communauté mouride maanaam ki yor kàddu yoonu mouride di liggéey woo xam ni ba ñu ko ko sasee ba léegi mu ngi ciy def liggéey bu am solo muy liggéey bu kawe boo xam ne mi ngi koy defee ni ko sëriñ bi bëggee waaye lu jiitu muy yor kàddu yoonu murit sëriñ ba Mbacké moom sëriñ Abdou Khadre liggéey jaamu yàlla ci la mës a nekk sànc ay daara di jàng ak jàngale alxuraanul karim di tarbiya waaye it noonee la taxawalee ay tool yoo xam ne da ciy bay ci mbooleem daaraam yi sëriñ bi nag muy koo xam ne bañ na ko bu ñuy jébbalu ci moom kenn ku ci ne lam lay njëkk a wax mooy nanga fonk jaamu yàlla fonk say ñaari waajur nangoo liggéey te moytu tooñ loolu nag xam nga mooy mooy diine islaam waaye mooy ak taalibe mooy lifi fi sëriñ bi bàyyi woon loola nag daf ñu cee jiitu nekk ci moom ci wàllu jaamu yàlla gi waaye nekk ci it ci wàllu liggéey waaye nekk ci nag ci fonk ay kilifaam ndax sëñ Bass ku ko xam-xam ne ku fonk ay waajur la ndax bokk na ci li màggal suñu Abdou Khadir ji sooy wax ak moom ci li jëm ci màggal gi lépp loo ci yéem sax dalay wax ne loolu bëriwul ndax ku la boole ci Serigne Touba amoo fayam. loolu it wàcc ba ci ay magi boppam ci ay kilifaam tàmbalee ko ci seen Cheikh ba ci suuf ñoom ñëpp. loolu gis ngeen ne Serigne bi day sàmmanteeg moom bu baax loolu nag bi mu ñu ko digalee ñu topp ci ginnaawam gis mu koy doxee ndax nag alxuraan daf ñoo wax ne. ataamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afala taqilun loolu nag ñu gis moom loolu mu ñu kii yëpp bi ñu koy xool gis ne sëriñ bi loolu lépp moo ñu ci jiitu mën ñu ci ba pare nag wax dëgg fa yàlla am di ñu ci teete di ñu ci tàggat kon loolu mooy li nga xam ne xam nañ ko ci xam nañ ko ci moom beneen bi si topp nag mooy sëriñ bi day koo xam ne euh, royukaay la ci fànn yëpp ndax li ëpp solo ci nit muy xool mooy sëñ bi suñu borom daf ko dimbale may ko xol bu rafet may ko xolu yërmande mais may ko xol bu baax a baax a baax ba ñun ñi ñëpp di taalibe yi mu àndoon ñun comme ci ànd ak rek li ngay yëg mooy bëgg laa jëriñ a tax mu ànd yow waaye du bëgg laa jëriñu loolu day weddi nag ñiy wax naan sëriñ si dañuy exploité nit ñi waaye ñun de liñ xam ci sëriñ si njabootu suñ Tuubaa gi mooy kuñ ànd ak na ko sëñ Saali waxee woon na ñun de kuñ ànd bëgg laa jëriñ moo tax waaye du bëgg laa jëriñu loolu nag ñun dey dañ koo seere ci sëriñ bi bu baax a baax a baax fu mu toll mi nga xool nu mu jëriñee taalibe yi ci saayir ak ci baatin na nga xam ne sëñ bi moom boo koy xool bu baax da ngay gëm ne dafa bokk ci ñaanu sëñ Tuubaa bi mu waxoon zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu mooy ay sët wala njaboot gu baax goo xam ne seen yitte yëpp mooy yeesal li nga xam ne mooy yoon wi nga xam ne moom la fi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyoon kon moom mel na ne bokk na ci ñaan googu comme ni nga xam ne moom moo dal setu sëñ Tuubaa yi bu dee ci wàllu nag liggéey sëriñ bi ñun biñ ko xamee ba tey ci toj ay àll di fa def ay tool wala di fa def ay daara ci lañ ko xamee boo jëlee daaraam ji nga xam ne moom lañ naan Mouré nekkee ci Colobane Saloum Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadr mi ngi ko sanc ci atum 2002 ci ndigalul Serigne Salihu Mbacke Serigne bi di fi jàngale alxuraanul karim tarbiya ak mbay. daara bi fii mooy Touba Mouré dëkkub Cheikh Bassirou Abdou Khadr. ñu ngi ko sanc ci 2002 ba mu sampee daara ji la samp daara jàng fii moom liggéey ak jàng moo fi nekk waaw kon daara ji yàgg na. mu nekk lu am solo loo xamante ni sëñ bi mu ko fiy def xaj na ñu bëri xamuñu ko waaye sëriñ Bassirou moom naka jekk moom ci liggéey la nekk ak jàngale. fii nii ñoom fi lañ dëkk ci biir daara ji fee nag mooy kër sëriñ bi. daarul xaddim nekk ci Touba ci yoonu beleel bi sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadir am na fa daaray alxuraan joo xam ni mi ngi ko sanc ci atum 2006 daara ji alxuraanu karim rek lañ fiy jàngale boole yar ci yarob waaw daara ji nag ñu ngi ko sancoon ci atum 2006 lañ ko sancoon euh, sëriñ bi nag mi ngi ko sancoon ci ndigalul kilifaam yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekkan Cheikh Salih Mbacke radiyallahu anhu ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul Khadir bi nga xam ne ñoo nekk ay kilifaam. mu doon daara joo xam ne daara la joj boo bëggee xam doxin wi daanaka boo xamee daara yi sëriñ Saalihu rek xam nga doxinu daara ci ndax ñëpp noo xam ne noonu la ko daan defee ci yar ak ci jàngale noonu la daara ji di doxee ci wàllu yar ak ci wàllu jàngale daara ji nag bëri na ay xale yoo xam ne ñu ngi fi seenum njàngit eh, la ca war ci taxaw ci wàllu dund ak ci wàllu nekkin yëpp sëriñ bi moo leen ko yoral fi lañuy ñuy lekke fi la ñuy naane fi la ñuy fanaan duñu yelwaani añ duñu yelwaani reer duñu yelwaani ndékki lépp sëriñ bi moo leen ko gàddul ba ci sax yére yi nga xam ne moom lañuy sol moo leen ko gàddul euh, seen lim nag takku na ni ko suñu saa yi daan defee rek noonu la koy defee comme ni ko kilifa yu baax yi daan defee ay waajuram sëriñ Abdul Xadir képp koo xam ne am nga yaakaar ci ñoom jël sa doom jox leen ko Euh, boo dikkee jëbbal ko sëriñ bi bu ñëwee ñun dañ koy saytu xool ko bu dee ku daan jàng la ñu xool am njàngam fu mu toll bu dee ku mës sa jàng la ñu xool nan lañ koy yoon yoon lañ koy jaarale ba dalal ko jàng ba mu jàng ba ba fer ij bu ko defee ñu teg ko ci yoon mbooleem daaraam yi nag moom sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre da ko yittee lool bëggul benn yoon ndongo yi nga xam ne ñoo fiy jàngee di tumburanke moo leen yoral seen lépp muy dund gi ba ci wàllum paj gi programme mooy ñi ndaw ñi nga xamante ne ci jàng lañ toll. fi la ñuy jànge fi la ñuy fanaan fi la ñuy lekk fi la ñuy fajoo fi la ñuy defee lépp amul fenn fu ñuy dem fi ne ku ci dara ki hôpital baa ne sëñ bi moo ko fi def bu fi dara dal muy fii ak tund yëpp ci hôpital bi ngay dem faju maanaam kon jéggaani wuñu dara lépp sëriñ bi moo leen ko yoreel lépp sëriñ bi moom moo koy def. njàng mi nag comme njàngum cosaan ma rek la comme njàng mi nga xamante ne mag ñu baax ñi daan nañ ko jàngalee mooy jàngal xale bi ak yar surtout yar yar ko toqi ko ci yoonu jub toqi ko itam ci yoonu lislaam toqi ko itam ba nga xam ne bu génnee société bi nañ ko mën a jariñoo ci wàllu jëflante ci wàllu nekkin ak ci wàllu dëkkin loolu daal bokk na ci li nga xamante ne moom mooy tax sëriñ bi sañ ci daara ci ku ci jàng alxuraan ba mokkal da nga jàng xam-xam waaw loolu moom mooy yoonu njàng waaw boo jàng alxuraan ba àggale nga dem jàngi xam-xam-xam say farata dañuy jàng alxuraan waaye dañ ciy boole di jàng xasida waaw noonu noonu moom mooy programme daara ji waaw gone yi toll ci jàng ci jàng rek dëkk bu sell bi di tuuba boo weesoo hôpital bu yees bi nga xam ne moom lañ fi taxawal sëriñ ba Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre am na fa yeneen yeneeni daara muy daara joo xam ni alxuraanul karim rek lañ fay jàngale boole ko ak yar daara ji ñu dëppee ko jannatul firdawsi lépp loo xam ni daara laaj na ko ak bërëb boo xam ne dañ ci toppatoo ay gone taxaw leen ba ñu mokkal alxuraanul karim sëriñ bi def na ko ci barab bi bile sëriñ moom njàng mi da koo da koo jiital fonk jàng ak yar loolu moom mooy li ko li ko fi yitteel nañ leen jàngal nañ leen yar nañ leen liggéeyloo loolu moom mooy li ko yitteel surtout yar bi nan yaru waaw ay nit ñoo xam ne ay modèle la doon bu ëllëg ak si bu ñu fi jógee ku leen gis xam ne ñi yar nañ leen ñi defar nañ leen. daara yi ba ñu leen sancee ak léegi li fi jot a mokkal alxuraanul karim lim bu takku la. ñu fi mokkal alxuraan bëri nañ waaye li koy firnde rek mooy kaamil yi ma teg ci sama wet nga xam ne ay kaamil alxuraan lañ toll ci ñeenti kaamil yoo xam ne dañ ko bind nii ba noppi ba topp ko. Eh, seeni borom mokkal alxuraan noonu la itam la am ñeneen ñoo xam ne mokkal nañ ba jóge fi nekk ci yeneen daara yi sëriñ bi am na ci ñoo xamante ne mokkal nañ ñu ngi fii ci biir daara ji di di di di continuer seen njàngoom xam-xam ndax daara ji moom buñ la jàngalee ba nga xam ne mokkal nga li ngay njëkk a def mooy buñ saytoo ne yow mi mokkal nga da ngay beqi comme ni ko mag ñi daan defee njàngum ci sànn beqi mooy jël alio di bind te li ngay bind doo ko gestu boo noppee yóbbu ci sëñ daara bi mu mu la la toppalee bu xoolee gis ne li nga beqi baax na boo ko defee ba kaamil bi jeex ci lañ lay door a nag nga mën a bind kaamil boo xam ne boo ko dee gis mën na ñu topp ko ko sëriñ bi sama moom la ma aspect moom liggéey yi nga xam ni Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadr moom lay liggéeyal yàlla suñu boroom di ci liggéeyal maamam ju tedd ja Cheikhul Khadim da ko royee ci sëriñ saalihu mbàkke ci liggéey yu am solo yi nga xam ne def na ko ci réew mi ci jàngal gone yi ak yar leen waaye nàmpatal leen ci wàllum liggéey loolee moom moo tax moom sëriñ Basiiru Mbàkke bëri nay ndongam yoo xam ne da leen a joxe woon ci daaray sëriñ saalihu mbàkke yi waaw sëriñ Basiiru nag njàng moom léppam référence mooy sëriñ saalihu népp nu sëriñ saalihu daan doxee soo ñëwee ci daaram loolu lay doxal loolu lay gëstu ci loolu lay dox népp noo xam ne suñ Saliou doon na ko yore daaraam muy njàng mi nga xam ne dañ na ko sax bu ñu yëkkati xasida ci njàng yi air yi nga xamante ne mooy air yu yàgg yi nga xam ne moom lañ ci fekkoon mag ñi daan ko jànge moom lay jàngaloo ko nekk jàngalekat yi moom sëñ bi moo leen di mooy xool kuñ xool bañ nekk kii ku mën a jàngal surtout ñu jaar daara suñ Saliou nga xam ne am nañu yar am nañuy teggin ba noppi jàng ñu ëpp ñooñu lay indi waaye da leen di jàngal waaye da leen di fay nag waaw da leen di fay xaj na sax am na gone yu mu yor yu mën a jàngale waaye fonk gum ko fonk day tax mu indi keneen di ko fay pour ñuy jàng. Ah, programme bi ni mu demee mooy comme daara ji moom xale yi demuñ fenn defuñu dara bu fekkee ne am na dara lu ñuy def mooy setal daara ji ba mu set waxtu bu nekk ba nga xam ne ku ñëw dana xam ne daara ji ñu ngi koy taxaw ah, bu ñu xëyee suba gi danañ teel a yow bu ñu jullee fajar ndax daan nañ gën a teel a yow sax waaye sëriñ bi moo nekk comme mm, xale bi teel a yow day waral nelaw yi di bëri li ciy baax mooy bàyyi leen ba 5 heures. ñu yee leen bu ñu yeewoo ñu jàng 5 heures la ñuy tàmbali jàng bu ñu jàngee ba 7 heures 8 ñu tari bu ñu taree seen bind dem ndékki bu ñu ndékkee ba noppi dellusiwaat dem dem setal daara ji ba mu set ñu dellusi euh, jàng seen wet bu ñu jàngee wet ba ay boori 11 heures midi ñu tari wet bu ñu taree wet wàcc bu ñu wàccee dallu ñuy bind dem bindi ñuy beqi dem beqi bu añ jotee ñu añ bu ñu añee pos ab diggante 2 heures. trois heures pile ñu duggaat bu trois jotee bu ñu duggee ci lañuy jàng nafar mooy liñ passé tari bu ñu ko jàngee ba ay vers quatre heures cinq heures ñu tari buñ taree ba noppi euh, door a door a dem àggale ji nag ñu doon def benn ñu dawal seen bind bi nga xam ne moom la ñu war a jàng suba nga xam dañ koy dawal ci ngoon gi tuuti bu ñu nee bay 18 ñu wàcc bu 18 heures bu ñu wàccee dañ leen di bàyyi ñu dallu duñ nekk ci nekk ci daara ji. bind ñi ñi nga xam ne ñoo am ay yitte yu sew sewaan yi ñu def ci daara ji wàllu liggéey bi yooyu ñu dem defi ko boo ko defee nag bu ñu jullee timis ba noppi nag ñu jàngaat diggante timis ak gee bu ñu sëlmalee gee nag dañuy wax ci tëdd ndax duñ dem fenn bu ñu sëlmalee gee reer tëdd tëddee noonu la programme bi di doxe njàng mi jëm ci tutànk yi ak yar gi sëriñ bi da ko yaatal ci ay gox yu wuutee ci biir réew mi boo ñëwee fi nga xam ni moom moo di dakaar sëriñ bi am na fa daara ju mag joo xam ne ñoo ngi ko dëppee muxaddamatul xidma di daaray internat ak externat maanaam ndongo yi am na ci ñoo xam ne ci daara ji lañ féete fi la ñuy fanaan noonu it la amee ñoo xam ne dañuy jàng di ñibbi mu am it njàngum français li dalee ci jardin d'enfants ba keroog ngay def BFEM lépp di njàngum franco arabe suñu daayira bii nga xam ne mooy Muxaddamatul Xidma daara ji tey am nañ lu ëpp cinq cent ndongo yoo xam ne ci diggante ñu fi interne ak ñu externe mooy di jàng di wàcc ak ñu fi yendu daara ji nag mu ngi tàmbalee ci rawda muy maternelle ba i'dadiya muy troisième collège nga xam ne am na primaire am na collège nga xam ne daara ji bi ñuy door a tàmba 2004 alxuraan rek la woon bi ñëwee ba 2008 si lañ ko formalisé def ko daara joo xam ne xale yi dañuy jàng di mokkal ba 2008 2011 suñ xale yi njëkk a mokkal nag ñu gis ne bu ñu leen bàyyee ñu génn dem dañuy ñàkk alxuraan ji te tubaab day wax ne l'environnement détermine l'être bien dafay jeexital ci doomu aadama ci lañ jëlee nag franco arabe dugal ko ci ba pare dugal ci internat nga xam ne xale bi dafay boole alxuraan ak franco arabe euh, bu yeggee CI lay tàmbalee français bi ba buy yegg sem 2 mu wàcc nga xam ne at mu jot dañ koo def tawsiyan maanaam buy def CI nangami xisib yi lay jàng ci lay fere buy def CP nangami xisib yi ànd koog nag ñetti weer yu ne dafay am taqyim muy évaluation natt boo xam ne dañuy natt xale bi su yëgee CM2 day daal di wàcc am na xale yoo xam ne sax CE2 la ñuy wàccee wala cm su wàccee nag am entrée en sixième am toppaat sixième collège mooy awali i'dad di bu ko defee bu toppee cinquième daal di mokkal quatrième mu tari taree nag daal di commencé beqi boole koog majaalis bi nga xam ne xale bi buy am befemam day fentu mokkal na ba beqi ba pare majaalis bi ci ci ànd ak téere sëriñ bi ak téere yi ñu jàng ci ëpp dana ko jàng su ko defee nag génnee day dem ci école état bi muy lycée di def seconde booba nag da koy booleeg su wàccee su ay parents farloo muy ñëw ci daara ji continuer bindam ak majaalisam ak njàngum diineem waaye nag ñi nga am ambition dem ba lycée nga xam ne xale bu fi génn bag la fiy génne ngir mën a anticiper lii nga xam ne mooy liggéeyu mun taxaa bi nga xam ne xale bi dina mën a dem université Cheikh Anta Diop waaye dina mën a dem ci Cheikh Ahmadou Bamba bi waaye sax dina mën a génn bitim réew ndax ay diplôme euh, reconnu lañu am daara ji nag ba nii ñu wax recruté na lu mat de personnes yoo xam ne fi la ñuy xëy di fi wàcc. 2014 si lañ jëndee terrain boo xam ne wax dëgg fa yàlla euh, R plus 4 la ñu tabax ko pour mu nekk internat. 2020 ñu jënd beneen terrain boo xam ne. ñu ngi koo jàpp tamit defaat ko R plus lépp mu nekk ay infrastructure yoo xam ne dafay méngoo enseignement de qualité li muy laaj njàngaleem alxuraanul karim gi ak sancug daara yi sëriñ bi da ko boole ak liggéey mu liggéey boo xam ne dafa jëm ci tool yi boo ñëwee fii ci Jolof boo weesoo ranch de Doli ci wetu dëkk bu ñu naan Thiel sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir am na fa ay tool yu mag yu ñu dëppee Hisnul Abraar tur wi bàyyeekoo ci cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru di xalifa général des Mourides muy tool yu yaatu yoo xam ni sëriñ bi waajal na ko ci weeru mars 2022 bi ñu génn ci ak ruuj mu yaatu mu foote woon ngir fas yéene fee bay waaye it taxawal fi daara ju yees joo xam ni dafay jàngale alxuraanul karim di fi yar ndongo yi muy daara ji nga xam ni liggéey bi daanaka léegi mu noppi fii ci tool yi Hisnul Abraar yi door nañ fi mbay mi ci atum 2022 bi muy mbayum gerte dugub ak mboq. bi nekk mi ngi tudd Hisnul Abraar di bërëb sëñ sëñ Abdou Khader liggéey ak bi lim tàmbaleegul gerte la ak mboq ak dugub dugub ji nag xam naa moom comme li ñu door tàmbali li ñu ci def moom bëriwul moo tax gerte daal lañ fi ëpp lu def léegi nag li fi def mi ngi toll ci 11 tonnes. 700. matériel bi koy béy xam naa mi ngi toll ci ñaari tracteur lay doon ñaari tracteur tracteur bu ci nekk day ànd ak day am machine labour am machine ji am machine bay tracteur bu ci nekk it ñaari safoor la am safoor yi ndax gerte gi machine tracteur bi li mu baaxoo liggéey mooy balaa ji gerte day labour par door ji. sëriñ bi directeur yi lay bàyyee ndax mooy gën a may gone ñu gën a mën a jàng ndax boo yoree ak jur gone yee leen di toppatoo te kon da leen di yàqal seenum njàng te sëñ moom njàng mi da koo da koo jiital fonk jàng ak yar loolu moom mooy li ko ko fi yitteel nañ leen jàngal nañ leen yar nañ leen liggéeyloo loolu moom mooy li ko yitteel. jamono jii ci ji lañ toll naa ji mi yegg na moom waaye dañuy gerte gi sax tax waaye sax bi dafa doon ñaar ñaari ji ñaar ñaari ñaari pàcc bi ñu njëkkoon ji na ba génn waaye bii des day door toll ci digi di door a génn rek léegi bu ko muñalee tuuti ba gerte gi màgg tuuti ci lañ koy commencé ci lañ koy laa ko xotti xotti mooy mooy mooy bay nañ ko xotti benn yoon ba ñaari yoon bu dee ci wàllu liggéeyu tool yi itam lépp loo xam ne sëriñ bi mu ngi ko fiy bay addiya lay doon joo xam da ko yëkkati yóbbu ko ci sëñ bi joxe ko nekkul loo xam ne ñu ngi koy bokkal di ko liggéeyal ñëpp day dajale lépp dem joxe ko addiya moom noonu lay liggéeyee depuis mu sampee daara ji ba léegi nag. waaye xam naa dañ koy muñal tuuti bu saxee ba ba gerte gi xaw a màgg ñu xotti ko xotti bu njëkk ku bàyyati ab diir mu kenn ñu door ko xottiwaat xottiwaat moom lañ koy bàyyi ba mu ñu doog ko deqi deqi dajale ko naaf ko daal koy bàcc jëri ko taxale gerte ko ngooñ mi boobu la foofu la toll yem. li nga xamante ci tàmbali moom ku ñu wax kii dee door tàmbali naa ñaan la bay na tool ci dix moom ci tàmbali kon na xam ne kooku moom wax yàlla jàmbaar la lool te it xam moom bu ko yàlla sottalee moom ku fi nga xam ne kii liggéeykat la ndax door a rek def dix tonnes xam ne kooku moom am na yéene bay te jàmbaar la yoon wi nga xam ni sëriñ bi ci la teg ndongo yi da cee farlu lool nampatal leen ci liggéey ak jaamu yàlla yàlla dafa doon ñun ñun ñu nekk ci loolu la ñu yor liggéey surtout dem ci ay tool waaye lii moom royukaay la ci bépp kilifa ak képp ku ñuy tudd ñu tudd Sëñ Tuubaa ndax ndax ndax doomi Sëñ Tuubaa yi ci lii lañ leen xamoon dem ba ci digg àll bu xonk cor nga dagg fa lu yaatu lu toll nii yóbbu fa ay nit yor leen seen lépp di leen dundal di leen faj di leen toppatoo indi fa matériel bu doy loolu lañ xamoon ci doomi Sëriñ Tuubaa yi kon suñ gisee sët Sëriñ Tuubaa di ko def waaw dañuy xam ne kon topp na tànk way juróomi te lii moom du lu yomb moom àll bi ko xam àll bi ni mel nga ñëw fi def ko nii di fi liggéey lu toll nii ku xam ab àll da xam ne kon loolu yombut waaw kon moom taxawaayam dañ koy rafetlu loolu wax dëgg yàlla te ñëpp war nañ ko ci roy ndax lii moom su yaatoon ci réew mi rek moom mooy li gën a gaaw yóbbu am réew ci kanam loolu moom ku ñëw bëgg histoire yi da nga xam ne buñ ci amoon ñu tol ni moom ñu bari kon réew mi dana weesu fi waaw fii moom wax dëgg yàlla dara manqué fi tumaranke la baaxoo ak métti ay wax dëgg yàlla fii moom tumaranke fi mu ndax it dund bi doy na am nañ ndox dara manqué fi sanc moom da nga daan rooti di rootaani te fi wax dëgg yàlla rootaani ñu oto moom donte ne forage bi noppeegul it indi na fi oto boo xam ne moom moo gaare ci biir kër gi mbandu seetaan na bu mag moom saa su jeexee day dem déywaat ñëw gaare ma ne moo ñu ci wàllum ndox daf na fa am magasin boo xam it lu jëm ci li ñuy dundee lépp moom mi ngi ci biir moom dara joxu fi moom ci biir lépp mi ngi ndax li mu def fii ci matériel doonul ni fii dong la ko am ndax am na jeneen daara am na yeneen ni tool ndax mi ngi yëngu ci wàllum xaal di ko bay xaal ju xaal ju mucc ayib sax liggéey liggéeyub tool yi di mbay mi sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr yemalewu ko ci mbayum nawet rek day def culture maraîchère ci toolam yi nga xam ne ñoo nekkee ci Pout ci région de Thiès. ñu dëppee ko tey séerul asir. sëriñ bi di fa bay xaal ariko soble tamaate ak yeneen légumes lu bëri ci mbay mi da koy exporter yóbbu ko ci bitim réew boo jëlee wàllum xaal gi ci ñetti weer rek dañ ci produir lu toll ci 1400 tonnes. toolam yi nekk Pout. liggéey la fay def di def ay production ci wàllu moulon mu ciy produire loo xam ne lenn li ñu koy exporter lenn ñu ngi koy jaay ci biir réew mi ak euh, création d'emploi bi muy def te loolu lépp nag sëriñ bi wax dëgg fa am boolewu ko nit ñi di ko xam. mbooloo mi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre jaayanteeg moom di leen a digal ci mboolem bërëb yi nga xam ne ci la ñu nekk ñu fay taxawal ay daara di fa jàngale alxuraanul karim di yar gone yi yenn ci barab yooyu Toucar nekkee ci région de Fatick ak jàkk yéen nekkee ci région de Diourbel. ñun daayira yi nga xam ne ñun ñoo jébbalu ci moom ak fu ñu fi nekk ci biir Sénégal daf ñoo organiser nos ñu ndax ñun suñu daayira bi ñu ngi tudd Muxaddamatul Xidma beneen daayira mi ngi tudd Nuuru Daarayni waaye daf ñoo nos ñun ñëpp tuddee ñu fédération taawuna ala xidmati cheikhul xadim soppee sëñ Abdou Khadre nga xam ne moom lépp rek da ko delluwaat ci sëñ Abdou Khadre ak sëriñ bu mag bi mu ko sosee nag ñuy dox di dox ba yàlla dogal porte parole bi ñëw ci moom dafa dajale jëwriñ yëpp ku mel ne man ak ku ñuy wax sëñ Malick Diop ak sëñ Ahmad Ndiaye ak sëñ Assane Diop mu yónni ñu ci région yi benn mission mission boo xam ne sëriñ bi daf ñoo wax nañu fu ngeen fi dem ci daayira yooyu nga xam ne ci man lañ jokk nangeen leen soññ daayira ba ñu def fa daara di jàngale alxuraan di jàngale xam-xam waaye di yar gone yi ci xasaay di ak taalibe barab bii nu nekk muy Touba Toucar muy ëtt boo xamante ni ëttub lislaam la ndax defe naa ne fii gis nga léegi xale yi ñu ngi ci alxuraan ji ñu ngi ci xaside yi daara ji nag 2019 daal ci leen liggéey bi ci lañ dugg ci liggéey bi door ko waaye nag ci ndigalul Cheikh Mahmadul Bachir moom sëñ Abdul Xaadir gaaral ko liggéey bi Cheikh Mahmadul Bachir xam ne lii rek la Cheikhul Xadim bëggoon ndax sëñ Tuubaa képp ku koy liggéeyal te bëgg ci am ngërëm lu wóor faaw nga laytaay ko ak alxuraanul karim ndax Cheikhul Xadim moo bind ci xalañ maam ne bustaani kitaabullahi ku bëgg xam sama tool man Cheikhul Xadim yor sa gopp am yéen bëgg ma cee bayal nee na kitaabullahi mooy téereb suñu borom bi liñ fiy jàngale mooy téereb suñu borom bi di alxuraanul karim ak xasaayiti sëñ Tuubaa yi ak itam di leen yar yarub lislaam te yarub lislaam bi ci gën a wóor nag mooy eh, eh, nu tënk ci njàngaleem sëriñ bi loolu mooy mooy mooy li nga xamante ni moom lañ leen jàng ci daara ji mboolem xal yi yëpp ñu ci ëpp fii lañ daree alxuraanul karim ba ñu ci bëri sori nanu ñenn yi itam ñu ngi jàng xasida mboolem xoole itam da nga xam ne ñii ay murid lañu dañuy dund sëñ tubaa te alxames gu jot dong yi fi nekk eh, ñu ngi fi def guddik àjjuma alxames gu jot daan wàcc kaamil alxuraan boo xam ne dañ koy def addiyey sëñ Tuubaa te kenn du leen rax jàng fi ay limi xasida te kenn du leen rax ànd koog waa dëkk bi nag dundal guddi gi ba ba mu sori daara ji mi ngi nekk fii ci Touba Diakeen jàkkayel mi ngi ci région Diourbel ci commune bu Paatar daara ji daara alquranul karim la ñu ngi ko sosoon 2019 le 26 août daara alquran la waaye dañuy jàngale xasida day yaraale xale yi teg ci lenañ daa fekkoon ñu nekkoon ci leneen di def ay bis chaque année mu ni lii nag baax na waaye daa am lu ma gën a yitteel li ko gën yitteel mooy taxaw ci tutànk yi jàngal leen yar leen ndax ñaar yi mënut a nekk mënut a ñàkk ci doomu aadama mooy jàngal xale bi yar ko bu màggee mën a xam mooy kan loolu moo taxoon mu joxe ndigal ñu teg xeer wi mu ñëw fekki ko joxe ndigal ci koñ bi defi ñaan ba suñu borom sottil ko 2019 ba léegi daal daara jaa ngi nii ci ndigalam la la soto daal programme bi dañuy yeewu njël dañuy yeewu njël quatre heures bu ñu yeewu njël quatre heures jàng ba set heures trente xale baa ci dem te daal noppalu ba ñu xëyee suba huit heures trente ñu dugaat jàng ba une ñu wàcc bu ñu jàngee sax ba midi trente nit ñi dañu commencé wàcc ñu wàccagul nag ñu des ak ñoom ba dama ba ba une heure ba une heure ñu wàccaat ba quatorze heures trente ñu dugaat ba quatorze heures ba dix huit heures ñu wàccuwaat. bu fekkee ne alxames ajuma ci guddi xale yi ñoom ñu féetoo kuréel bi ndax bu dee duñ ko jàng mën a ñoom dañuy kuréel duñ kuréelee ba ñu noddee ba julli ko bare ñu daal di daal daal noppal ba suba. liggéeyub sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr ci ndaw ñi ginnaaw njàng mi ak tarbiye gi yar gi ak liggéeyub tool yi am na centre de formation professionnelle boo xam ni taxawal na ko ci Touba mu lëkkaloo ci ak état bu Sénégal ñu fay amal formation ci wàllum informatique ak lépp lu ci ajowu di def transformation produits locaux entrepreneuriat di leen jàngal lu ñuy defaree ay détergent ba ci eau de javel centre de formation bi mu ngi jàkkaarloo ak këram gi nga xam ne moo nekkee ci Guédé ndax ci biir bëgg njàngam moomu ak xam fi jamono jëm ak dégg gi mu ko dégg am na benn centre de formation bu ñu tuddee centre de recherche et d'essai bu soxna Roqee Bousso mi ngi nekk Guédé ci wetu këram sëriñ bi infrastructure yi rek def na ci 7 million ñu tabax ko donte amoon am na yéene mu weesu foofu bi mu ko tabaxee ba pare def demande ministère de l'enseignement supérieur ñoo indi ko tafal ko fa ay machine mu nekk centre boo xale xale yi dañ leen di former ci euh, informatique su ma waxee informatique bureautique ci la bokk infographie euh, maintenance waaye nag dañ leen di former sax ci ay réseau dañ leen former ci wàllu comptabilité ba ci entrepreneuriat waaye ànd ak loolu da nga naan comme xale yi jàng rek la mën a déedéet ba ci ñi nga xam ne ay soxna lañ ñi leen defal foofu ay transformation agroalimentaire ñu ngi def ay saponification di defal ay saabu defar ay eau de javel di defar tamit ay jus transformation rek loolu nag am na ci pas-pas boo xam ne bëgg nañ defar ay kii formation oo xam ne day am benn chaîne de valeur xale yi bu ñu bayee ba transformation yi ba niñ koy écouler ci marché bi loolu tamit ñu dugal ci entrepreneuriat mais tamit ñu ngi ciy dugal lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu xam-xam yu bees yi jëm ci développement personnel loolu tamit sëriñ bi mi ngi ciy liggéey ñu ànd kook daaram xadumatu xidma ñu ci ñu ci ñu ciy liggéey moom nabaani wa biya wa ba Bassirou Mbacké moom sëriñ Abdou Khadr boolewul dara ak wax ci liggéey ak jaamu yàlla rekk ci la nekk taxaw ndaw ñi yee leen ci àddina tarbiya leen ba bu ëllëgee ñu mënal seen bopp gis-gisu sëriñ bi nag weesu na fii ndax am na ay naal yu mag yoo xam ni am na ko bokk na ci projet complexe di daara ju mag joo xam ni ñu ngi ko xayma ci 3000 mètres carrés muy bërëb boo xam ni dañ fay boole mbooleem xam-xam yi di ko fa jàngale mu war a am lu toll ci téeméeri néeg ak fukk ak benn lii bu noppee dana mën a jël lu bari ci ay ndongo ñu fay jàngee lépp ngir waajal ñi nga xam ne ñoo war a doon mag magi ëllëg di mag ñoo xam ne dañuy mokk lool ci seen wàllug diine waaye kenn du leen mën ci wàllu liggéey. yéen mi ngi am projet boo xam ne euh, yaakaar naa dana toll ci 3000 mètres carrés ñu war faa def benn complexe boo xam ne dafay intégré mbooleem xam-xam yi jëm ci wàllu tàmbalee ko ci maternelle ba terminale xale yi di mokkal alxuraan di fa jàng xam-xam yi weer di am ay formation académique sëriñ bi loolu moom moo nekk vision muy internat boo xam ne internat modèle lay nekk boo xam ne dina mën a jël en temps normal mil mille mille interne en raison de cent onze chambres maanaam nga xam ne néeg bu ne dina am ñetti lits superposés bu trois niveaux donc boo xam ne tamit dina amaale ay bloc administratif dina am Euh, jàkk dina am ay salle coranique yu ñuy jànge waaye dina am réfectoire ak cuisine mooy fi xale yi xewlu waaye tamit dina am infirmerie boo xam ne moom mooy taxawu xale yi waaye dina am centre commercial boo xam ne xale yi la ñuy soxla ci wàllu jàng ak jënd ak yooyu yëpp dana fa daal di am xam nga Sénégal liñ xam mooy euh, masar maanaam mm, loo xam ne day feeñ waaye sëriñ bi wax dëgg fa la mi ngi liggéey ci développement personnel te développement personnel dara jiitu ci jàngal nit ki yar ko waaye xam nga jàngale moom boo xoolee li ñu am fii ci Sénégal ñëpp a ngi jàng ñëpp bay daanaka koo gis sax borom xam-xam mais nit ku jàng ba pare la taxoon jàng ñu di ko def moom moo des te loolu sëñ Tuubaa moom la ñëwoon pour saafara njabootam gi ci loolu lañ nekk sëriñ bi tamit ci loolu la nekk moo tax daara yi nga xam ne mu ngi koy samp ak yii nga xam ne njabootam a koy yor yëpp da leen di soññ ci xale yi luñ jàng-jàng nañ leen yar ci taalibe ndax Sëñ Tuubaa dafa fa kasratul ilmi bi xayril adab jaalibatun ilal aza wa taam te Sëñ Tuubaa moom dafa mës a fonk jàng ndax lil Moustapha lii bana xuduusu madrasata biha yazulul aza wal jahlu wal kabar Sëñ Tuubaa ñaanoon na suñ borom may ko jàngukaay boo xam ne jàngukaay boobu nag boo ko déggee fu fi njabootam nekk rek di génne nit ñi ci réer di génne nit ñi ci alkande dafa tabbi ci ñaanu Serigne Touba googu yàllante woon sax loolu nekk ba France comme sëñ Bass ñi ngi ñaan yàlla yàggal ko fi lool projet yi mu am yàlla na ko muy naal yi yàlla na ko yàlla matale ànd kook ay magam ànd kook ñi nga xam ne ñoo ko wóolu ci liggéey bi waaye ànd kook ñun taalibe bi lil Mustafa wajatu abkar salam